sëriñ Basiru mooma noon dinaa xamal ñi fi sëriñ bu baax bi fi ba ñepp xam na kenn la yow paate jëng def ci bayit laa la digal wutal kayit